di len wax ngeen abonné ci chaîne bi di loxoy du monde tv te close cloche de notification bi ngeex ngeen di mën a jot seeni vidéo à temps réel waaye tam mën ngeen ñu bàyyil seen xalaat ci commentaire bi ndax loxoy du monde tv yeen la fi nekkal ngeex di jaamu seeni soxla amna ku ñu wax ahmad lamignas hey ñu ne doomu kilifa la di doomu serigne borom xam-xam ju reey je fan la jangé kan moko jangal ban école la génné waw xamna né école bu barna orchestre orchestre maa wax Ahmad Lamine bugguma tudé ñase ni ngir yow bu ñu fuuyee ndax ci nga bokk wala bokkoo ca doomu jitle dañu daan yem doomu jitle dañu daan yem yi ngay jayaaxu ci plateau yi di def n'importe ko ba mu fi ne ko toj naa sa gémmiñ door naa la bi sampal la génn ci sa gannaaw yow yow arabisan nga yow xam nga arabisan yu jëkk naka la meloon xam nga naka la meloon ñoom arabisan dëggu yu senegal yi buñ daan reyante ci bir sal yi xaj bi daaw ñu doon gis buñu ñu daan xeex wala ñuy nas kenn daaw loon gis way ñom baraayam yalla ko yàlla xaral aljana ñaseen yoy daan ñu leen gis way du yow mi do nitu dara yow yaa ngi jéem a rafetal sa gannaaw gannaaw suma xarit Sidi Lamine yaa ngi koy jéem a rafetal waaye doom mi am nañu xel doom yi nit lañu ndax Sidi Lamine lu bari la ma daan wax ci loolu ne dafa daan jàkk téléphone ma Cheikh xëj na yow xam nga ne sa papa am na ku ñu wax Tajudin Ousmane daf ma daan téléphone ñu am lu ma trente minutes di wax bi di jooy ci téléphone bi ngir Ahmad lamin mii yi mu koy def ci yu bon bon buggoon daraja buggoon martaba rek moom bu ñu gis ko noonu la mel dooñutu dara te incha allah am naa loo xam maa ngi koy préparé dinañu def dinañu ko communiquer ci mondo bi doo ñàkk ñu lay topp ci gannaaw bàyyi noonu la yow danga bari bëri pexe fen foo tekk ci télévision yi wala ci plateau yi di wanewu di saaga nit yi foo jaar dinañ la nox ka yeewal la génn ci sa gannaaw ngay daw yéen arabisants yi nekk Sénégal yéen ko bàyyi ci reewaanem bi da ngeen war def groupe dem door ko waaw door ko moo doon toroxal Sidi Lamine Sidi Lamine am na suma benn xar bu ma àndal mu ñëw fekk si ma bi ma fekk see mooy jamono yi bi ma jot teg suma benn xaritu imaamu Kawlaax Sidi Lamine moo ko arrangé suñ diggante kooku def ma tooñoon ma ne kooku fu ma ko gis dinaa ko jam paaka wala tiire ko pistolet ci bopp waaw ndax ñu mel noonu ñu mel noonu ñu baax ñe noonu laa mel mu ne uppale def mu ànd ak suma benn xarit mu ngi ci Sénégal léegi du ma tudda ñu ñëw seet si ma ci julli timis ñu julli ba pare léegi sëy bi ñu paree ma ne ko yow imam bu nekkul woon Sidi Lamine mii rey naa la moom laa desi doon gis nga suma pistolet bi dama la dooroon door ay genn ci bopp rey la waaw dafa am ñoom kenn du leen tooñ yow nag Ahmad Lamine na nga xam yaa ngi ci danger fi nga nekk nii bu ñu jógee nga di tëb seen tribunal artificiel bi fenkat yi nekk ci biir makki makki la nga yaakaar ne dañuy continuer makki day dem léegi ñu baax ñi toog nag di liggéey réew mi yow nag dañ lay waxuma la laaye waxuma leneen ay bal lañ lay door ci bopp yow billahi te kat am na ñaari bal bal boo xam ne rasaasul ilmi lay doon incha allahu rabbil alamin balu xam-xam lay doon diggante nit ak nit ci diggante bu sori xam nga li mën a wax yi nu da nga am baatin da nga am xam-xam incha allah dinaa jublu ci yow léegi boo amee xam-xam naa ko xam loola jot rek na nga xam ne rek min Ousmane ilayya waaw man la man maay Cheikh Tadjidine Ousmane Pouye waaw du da nga am xam-xam da nga am xam-xam léegi ma woon leen ko kilifa bu fi nekk di jaay le diini di jaay di xam-xam nañu dugg ci yeneen yoon yi nga xam ne incha allahu rabbil alamin léegi ñu gis kun fayakun ci ñoom di ngeen feebar di ngeen torox ku ci moytul balaa ngay dee too mën a wax sax du da ngeen jaay li xam-xam nañuy dugg ci xam-xam yi léegi mu jeex loolu laa leen sant ay mbar bu nekk ne dañuy lewtoo nañu dem ci biir làng gi ñu doorante ñu gis kan moo man du da ngeen jàng da ngeen am xam-xam maa ngi leen di ñaan nañ tase ci terrain bi terrain gu dëgg bi waaw mën nañu xeex ci diggante ci ay ci ay kilomètres kilomètres waaw dañ ko commencé seen muuraay yooyu lépp mu muureeku billaahi suma wallaahi waaw balaa may dee mu toog di wax ne kilifa yi yore diini ban diini ngeen yore yore leen dara caaxaan rek fen dajale hypnotiser population bi te population bi yal na yàlla fexe ubbi seen bopp yi da ngeen hypnotiser population bi da ngeen nelawal ku ci jóg solo bi pare nit yi wor da ngay jaayaaxu gauche et droite yo ya yo man na ruus yalla daf lay atte lek yalla daf lay atte na doomu adam bo toogee di len dominer te ñom dañu reer if yalla yàlla la way ñu mel ne man bala ñuy jeex ci kaw suuf population bi dinañ yewu waaw dinañ yewu ma ne ñii xaj lañu bandi lañu wuyul lañu maa ko wax waaw na ngeen mu reeku Macky utiliser na leen ba pare balaa may toog ne xaritu Macky la yow Sidi Lamine am yow Sidi Lamine li nga ko def ci àddina na nga ko fàtte Sidi Lamine li nga ko def ci àddina di ko fàtte amul nakar bo xamne bi teggulo ko ci gaw bopam domam yi sax dama len xawa mbere dañ la sann ci poubelle deug na am na sa benn sa benn xarit bu ne nañu sànni ay jigen benn jigen ci poubelle moy Aïda moy Aïda Diallo deug na le dañu doon wax ne benn serigne moy serigne muntaha mu nañ ko sànni ci poubelle talibé bari di mel eh taalibe na ngeen freiné xamulen li xew. doomu aadama nu manti mel kenn du ko sànni ci poubelle yonent bi musu ko def saaba yi musuñu ko def Sëriñ Tuubaa musu ko def nii ñoom Alaaji Maalik kenn musu ko def ci àddina xanaa ku beew tuqiyaan jog yaakaar ne ne am na benn martaba wala daraja yaay jog nga ne nañu sànni nit ci poubelle waaye Sidi Lamine na bi dem waaye Ahmad Lamine mii moom la ñu war a jël sànni ko ci poubelle ci taxluka ma ne déclaré nga guerre nag lu yëngu rekk ngelaw loo gis rek na nga xam ne incha xawma xaw sufliya xaw ma ulwiya dina ñëw di la siyaara mën nekk arwaahu sufliya aw arwaahu ulwiya waaw waaw dañ ne siyaara lii mën a wax nag sa mbokk niñ ko bind na ma ne arwaaxu suufliye dinañ lay siyaara wala ulwiye siyaar ñaar ñi am na ñu lay ci siyaara sa wax bi dafa bari waxoon naa la ne ngeen ne na noppi ngeen bañ nag nañu def tajruba léegi ñu xool nag yéen sëriñ yi comme man ngeen am ngeen xam-xam jàng ngeen nañu doo nañu na nañu sànnante ay affaire suñu diggante jeex na du dëgganam baatin ñeen top topp xamuñu li xew gañu wor am xam-xam fu nek jàng fu nek ngeen nek di len fonto loolu taxul won ma jóg dinaa jublu ci yéen ben bés te kat fi ma nekk pare du guerre ngeen déclarer nañu commencé guerre bi dañ man ñu guerre bi jéxati wa dëkk bi duñ ko yëg xana jëk rek ñu ne dem leen yóbbu ko cimetière loolu lañu ñu ci mbir mi inshallah dëkk na leen nak maa leen dekk waaw waaw maa leen dekk bu nekkee ne góor dëgg ngeen yéen jàmmaari ngeen li ngeen di woote mu ngi ci yéen dekk naa leen maa leen dekk bu ngeen ñëwee ma ñëw bu ngeen ñëwul ma ñëw lu ngeen gis rek muy guddi mooy bëccëg rek incha allah suma waa ji mooy Cheikh Ousmane Pouye wi mooy man mii dëkk naa leen jublu naa ci yéen waaw waaw lu ci nit xam rek na ko def maa leen ko sant waaye li ma xam dama koy def <laughs> waaw dama koy def la ngeen doon jàng ak la ma doon jàng nañu ko dajale muy guddi muy bëccëg ñu xam lan la mën nañu def mbir mi ci diggante ay kilomètres kilomètres tant que ci kaw àdduna amul foo mënul fekk sa morom ci kaw àdduna bi waaw muy zahiran wa baatinan waaw loolu laa sant ñaan naa leen ko waaye Sidi Lamine dem na suma xarit dem na musuma ci wax xaj bi woy naa ko sa bay jaale ko mbur rafetal واي لمسيد النتلي ماردي تالي واي نخ بلا بوبو لي امنا نيو فو خامني ген نيو ادنا عربي سان لاي وون دنج دان داس اك نيوم شيخ نيان شيخ نيان من خام نين كو بو نكون غروب مصطفى مصطفى تشبير لو بري يكنا كو تي موم مي احمد لامين نياس waaye doomu jiit la day yem foofu la mën a yem doomu jiit la day yem diw mooy suma bàyyi diw na nga ma nga am ci wàll yu yeeg yonente yeeg Cheikh Ahmed Tidiane ak yooyu yëpp na ngeen ko tegal ci côté dama lay wax diggante jàmm ak yàlla am na benn buum bu nekk diggante yàlla ak jàmm bi bu bu mooy buumu dëgg mooy contrat nit ki ak yàlla loolu mooy dëgg waaye diw doomu diw diw dugg na fii dugg na fii naaw na fi génn na fi yóbbaay la may yooyu di caaxaan dekk naa leen nag côté boobu nag nañu seetaan fekk ay jamono bu gàtt rek leen ngeen gis ñu bëri départ maa leen ko wax waaw seen muuraay yooyu nag jeex Macky war na leen trahi na leen ñu mel ni Ahmad Lamine Niass ñoy nek di wax makki na konti di wor di sag nit ju baax yi foo jaar ñu takkal la geen wallahi gëmoo li mu wax fo jaar ñu takkal la geen ndayu arab nga dafa am arab ak arab amna ay xardaan yo xamne di ñu dara surtout nak xam sa bàyyi lu am solo la jeexna foofu la mën a yem ci boobu lu point